Assalamualaikum warahmatullahi wa rahmatullah ñu ngi nii def nañu suñu tawaaf ba pare jëli suñu rakka def suñu safa ak marwa maa ngi ñaanal képp koo xam ne ak yow pas-pas Waye di ñaanal képp koo xam ni nii maa ak yow ñoo bokk dëkk ci tund bi nga xam ni nii ñoom la ma yàlla dénk ma nekk seen maire def ma nekk seen député waaye itam maa ngi ñaanal képp Sénégal nga xam ne maa nekk député ci nga bokk rawatina waa rawatina jurit ñi ci bokk maa ngi ñaan yalla teraanga yi yàlla teg suñu loxo yalla buñ ci rus aduna yalla buñ ci rus àllaxira képp kuñ koy xëccoo nit yalla nañ am ndam ci yow ak waxtu mu mënti nek ak lo mënti am ak fo mënti toll ak no mënti tollule maa ngi ñaan yalla yalla tagal la ba sa yéene ñew tabbi ci sama yéene sa doole ñew tabbi ci sama doole sa pexé tabbi ci samay pexe ngi ma ngir ma liggéeyal Sénégal liggéeyal kafrine loolu lay ñaan yalla subhanahu wa taala mën nako am nako yalla ñu ko defal maa ngi ñaanal kep ko xamni ne won yóbbante nga ma wala nga waxoon ne la indalé sa ñaan ñii tudd naa leen ñii tudd ma leen ba ndax bu ma tuddee Kaffrine tudd Sénégal tudd parti socialiste tudd naa leen moo tax maa ngi ñaan yàlla bépp soxla bu ñu am te waxoon ma ko mbala nga dégg vocal boo xam ne def naa ko mbaa nga gis image yi xamal ne sama yéene yee ma na ci yow ñaanal naa la yàlla na yàlla faj aajo yëpp yal na yàlla def ay jurit ak xan ba balaa ñu fi jee koo waaw kon nag fi toll nii maa ngi nii